delsi nañ ci seeni jotaay bi ngeen tàmm eh, ànd ñun di jotaayu bu warattilil qur'ani tartila ten ci jàngat ak di ci nafar règle yi nga xam ne ci lañ war a teg njàngum alquran ndax mu wér jotaay boobu ngeen di ko suivre ak di ko toppee incha allah ci ahlul quran point com wala compte youtube ahlul quran wala la du coran ñu ñëw ci suñu bindub ñettel ci téré bi nga xamni mom lañ tam diko top ak diko nafar di téré bi Tuhfatul Atfal bu al Cheikh Suleymaan al Jamzuri rahimahullah tey ñu wara doore ci babu an nun as saakina wa at-tanwin buntu bi nga xam nak day jàngale ahkamun nun as sakinah ak axkaamu tanwiin attay nuun gu sukuun attay nuun gu sukuun kon ñu dégg ci ni nuun gu sukuunul waxunu ko waaye gu sukuun la ñuy wax sukuun nag wala nuun gu sukuun mooy nuun gu amul ak maska ndax alxarakaat li ñu tudd alxarakaat di masque yi ñett la masque ak kaw la ñu tudde fatxa masque ak suuf la ñuy tudde kasra gu lonk ci kaw la ñuy tudde damma xaraf wu amul benn ci ñett yooyu moom la ñu tudde xarafu sukuun mandarga biñ koy wanee nag mooy masque néeg maanaam ak rond goo xam ne dañ koy def ci kaw xaraf yi pour wane ne xaraf yi xaalin anil xaraka nun gu sukkun googi bu àndee ak tanwin tanwin mooy ñaari maska masque yooyu ma junjoon sànq di ñett bu ci takkaraat ci kaw wenn xaraf xarafu am ñaari fatxa wala ñaari damma wala ñaari kasra ñaari maska yooyu tanwin lay tudd ak xeet gum doon ci ñetti maska yooyu ñoom ñaar bu ñu àndee di nun gu sukkoon ak tanwin ñoo bokk ay atte ci alquran atte yi di ñeent waaye nag li am xel di njëkk mooy ñoom lu tax ñu bokk ay atte ci alquran li tax ñu bokk ko mooy nun gu ci baat moom asl la ñëpp xam nañ ko waaye bu dee tan wiin cosaanam noon gu la woon am nañ nag ay furuq ay différence yu leen taqale tuuti waaye ñu xam ni noon gu sukun moom noon gu la nin ko xamee waaye wiin tamit aslan noon gu sukun la daañu junj incha allah eh, différence yooyu nga xamante ni mën naam taqale na leen pour ñu mën koo xàmmee ba fu nu déggee wala fu nu gisee xam ne lii munoon gu sukkoon la waaye lii euh, tanwin la différence yooyu dox seen diggante mën nañ ko tënk ci ñeenti tomb la ci njëkk mooy bu dee nuun gu sukkoon moom nuunun saakinatun asliya nuun gu sukkoon nuun sukkoon la goo xam ne day cosaan ci baat bi mu nekk luy dee cosaan ci baat bi mu nekk mooy saa boo ko ci jëlee baat ba manqué aw xaraf moo joxe misaal ci baatu min min dañuy gis ni nu miim gu kasra la ak nuun gu sukuun nuun googu cosaan la ci ndax boo ko fa jëlee rek mi kese fa aw xarafa fa des buñ jëlee misaal ci baatu ci misaal wal mun xaniqatu wal mun xaniqatu nuun googi nekk ci diggante miim gu damma gi ak xaaf xaakon gu fat fatxa gi cosaan la ci baat bi buñ ko ci jëlee rek baat bi day manqué dañuy wax wal te boobaa baat bi dafay manqué kon dañuy gis ne nuun gu sukun moom bokk na ci ay misaam maanaam niñ koy xàmmee mooy cosaan lay doon ci baat or que bu dee tanwiin moom dañuy gis ni nuunun saakinatun zaida nuun gu sukun lay doon waaye ndollent la ci baat bi du ci cosaan ndollent la ci baat bi du ci cosaan bi nga ne ci misaal gafuuran raximan raximan dégg nga nuun gu sukun ci man nga xam ni boo ko doon bind man nga koo binde miim ak nuun gu sukkoon ci ni ko dégg waaye ci mbindin dañuy gis ni miim la gu alif xëcci ñu teg ñaari masque ak fatxa ci kaw miim gi kon ñaari masque yooyu yi ak nuun lañ doxoon dëxëñ ca biir du asl ci baat bi kon dañ ko cee dolli bu fa jugee tamit du tax baat bi nekk mat mat maanaam al kitaaban buñ kitaaban baat bi tanwin na ñu dégg nun gu ci mujug baat bi buñ ne alkitaabu dañuy gis ni tanwin nga nekkatu fa maanaam nun gu sukun giñ déggoon ci mujug baat bi nekkatu fa waaye taxul baat bi manqué wala nga ne ci misaal haada kitaabu muhammadin kitaabun nga waxoon dégg ak nun gu sukun bi nga ne haada kitaabu muhammadin nun gu sukun gi nga déggoon ca kitaabun bi mu fii ñu ko dugal léegi amatu ci dégg too ko ci loolu nag day firndeel ni kon nun gu googi zaida la woon waaye du asl ci baat bi loolu lu mat a kon nun gu sukun asl lay doon waaye tanwin eh, zaida lay doon ñaareelu différence bi xajjale diggante nuun gu sukun ak tanwin mooy an nuunu saakina takunu fi l asmaai wal afaali wal xuruf nuun gu sukun kat dinay dugg ci al asma li leen gis nuun gu sukun goo xam ne ci ism la nekk comme li ma wax sànq ne al munxaniqatu waaye di nga gis nuun gu sukun ci fiil comme yanhawna wala yan yanxituuna wala yu nu demee waaye di gis nun gu ci xaraf comme min bu dee tan wiin moom ci ism kese la mën a dugg kon laneen lu leen xàjjale mi ngoog lu leen xàjjale mi ngoog mooy nun gu sukkoon mën naa dugg ci mboolem xeeti baati arab yi ism yeeg fiil yeeg xarf yi tanwin nag moom ci ism kese la mën a dugg du dugg ci leneen maanaam xa fi'l du tanwin xaraf du ñette ñetteelu tom bi nga xam ne mën nañ cee xàjjale xàmmee ci nun gu sukun ak tanwin mooy nun gu sukun takunu mutawassita takunu tamit mutatarrifa nun gu sukun dinañ ko fekk léeg ci diggu baat ju na naa sànq mun munxaniqatu nun gu sukun gi ci diggu baat bi la nekk catewul waaye dina cate tamit wax naa sànq baatu min noon gi mutatarrifa dafa cate bu dee tanwin nag moom cate rek la mën a nekk maanaam tanwin laa takunu illa mutatarrifa laa yakunu illa mutatarrifan tanwin mënta nekk lu dul ci catu baat doo fekk mukk tanwin ci baat mu nekk ca digg baat boo la ci njalbeen nga ci cat li kese lay nekk kon beneen différence a ngi noonu bu xajjale diggante noon gu sukun ak tanwin mooy noon gu sukun mën naa diggu mën naa cate tanwin moom mënta def lu dul ak cate ñeenteel bi ci yi nga xamante ni day xajjale ba tey nun gu sukun ak tanwin mooy nun gu sukun tathbutu lafdan wa xattan wa waslan wa waqfan nun gu sukun boo jàngee taxaw day feeñ boo jàngee wëy day feeñ boo bindee day feeñ boo waxee mu feeñ ci xaalaat yépp lay feeñi moom nun gu sukun wal munxaniqatu ci mbind mi da gis nun gu sukun kon xattan feeñ na kadalika dama waslu taxawuma ci nun gu sukun gi wal munxaniqatu ci misaal feeñaat na e, bu ci taxawoon wax wal mun ci misaal ma def lu mel ni sakti foofu nuun gi day feeñaat day sukun gi day feeñaat kon xaala yépp lay feeñe boo ko bindee mu feeñ boo ko waxee nit ki dégg ko mu feeñ boo wasloo continuer mu feeñ boo taxawee ci kaw nuun gi nuun gu sukun gi mu feeñ bu dee nag ten win moom dina feeñ ci mbind wala ci dégg kon dina feeñ tamit ci wasla waaye du feeñ ci mbind du feeñ ci taxaw ci misaal bu ma ni woon آه، في سورة النبي كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ولا كلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال مهادا دف تنوين بما وصلون مهادا والجبال تنوين جي فين نون زائد جوجنك تنوين جي feeñ na xaalal wasl jamono bi ma jàngee continuer boo ko bindee tamit mihaadan da dangay gis ni du feeñat kon ci ki dégg dina ko dégg bu njàngee kitaaban bu ñu wasloo tamit dina feeñ waaye bu ñu bindee doo gis nun gu sukun bu ñu taxawee doo gis nin gu sukun ndax mihaada ci ngay taxawee ana nun nga day dem kon beneen différence ngi noonu ci diggante nun gu sukkoon ak tanwin mooy nun gu sukkoon ci xaalaat yépp lay feeñ taxaw kontine bind ak lafd day feeñ ci son bu dee nun gu tanwin nag moom day feeñ lafdan buñ ko waxee kitaaban di nga ko dégg waslan bu ñu jàngee waslu di nga dégg waaye bu ñu taxawee doo dégg nun gu sukkoon du feeñ bu ñu bindee tamit wala bu ñu bu bu ñu bindee naam doo ko gis kon ñeenti tomb ak noonu yoo xamante ni takkale ne diggante nuun gu sukun ak tanwin ànd ak ni ñoo bokk ay att ci alquran bu ma tënkaat ne ñeenti tomb yooyu mooy nuun gu sukun asl la ci baat tanwin zaid lay doon eh, nuun gu gi nekk ci biir tanwin zaida lay doon ci baat nuun gu sukun dina dugg ci mboolem xeeti baat yi asma yeeg afaal yeeg xuruuf tanwiin ci euh, ci asmaayi kese lay dugg nuun gu sukkoon ci fi muy placé ci baat mën naa diggu mën naa catu cate kon nuun gu sukkoon mënta def lu dul cate ci baat nuun gu ci xaalaat yépp lay feeñ bind ak jàng wéy ak taxaw ak lafd ci son bi lépp lay feeñ tanwiin moom ci lafd ak wasl kese lay mën a feeñe yeneen du ci feeñe Eh, daanaka leeral googu xaw naa jël sunu sunu sunu jotaay tey incha allah kon dañuy taxaw ni foofu bu ñu ñëwee nag ci jotaay bi ci topp indi li ci topp ci buntu ahkaamu nuunu saakinu tanwiin eh, seen jotaay bu wartil Qur'aan tartiila ngeen àndoon ceeg Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye man koo suivre incha allah ci site eh, internet ahlul quran point com wala ci compte YouTube ahlul quran wala ci compte YouTube ba tey la maison du Coran assalaamu aleykum wa wa barakatuh الله الله الله الله رتل القرآن ترتيلا